bëree ndax ràññee yow foo jógee yow wax naa la nga moytu naaj nawet bi romb sibir nii rek ngeen ni de di wër rek naaj bi nga xam ne sibiru rek lay joxe salaamaaleykum. maaleykum salaam Ndiouf na nga maa ngi fi ay waay waay yow yaa ngi noos de. noos yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm naa la gis. maa ngi prêt ça va. maa bi va bien. naka gi. ah ñu ngi nii rek. Ah, koor gi de moom. muy loolu de. daa ànd ak tàngoor fi ñu toll nii. billaahi. yaa ngi ci tànnum ceeb bi. maa ngi si kawam de. Ah, ceeb bi léegi ma de jami damaa waaw. ceeb bi léegi saako boo dajji xeer kese nga. xeer kese nga fay ji xeer kese. depuis su ma waaye li ñuy def bàyyi fii li ñuy béyee fii senegal di dem jéggaane moo tax lu ñu am rek nañu jël. Ah, gis nga ah, su ñu yemoon suñu ceeb bii. yaakaar naa ne duñ ci daj xeer ah jami ma ne toogaay amul kër ga bàyyiwu fa dara 2000 francs yi mu la abaloon noonu keroog. moom laa jël si. pourtant dama dama bëggoon su ma fi paree rek sa kër laay jëm nii léegi. sa kër laay jëm nii léegi léegi xaalis bi laa ne sax moom laa lay. indi man kanam laa xaar ba soo gisuma ma ne xaaral ma xaaral xaaral ma dem fii jëli ko rek indil la ko. léegi léegi xaaral xaaral ma ñëw xaar ma ma ñëw.

dëgg-dëgg ndax ràññee nga leen Liberia génne nañu leen Sierra génne nañu leen Angola génne nañu yaay eh dama tey nokku li tey wallaay dina neex ndaxte liggéey am na way way way way gong sa waay jëlal. sa ma sama liggéey fii la yem. waaw waaw déet déet <laughs> euh. kii dama ngi yàgg te man heure baa ngi dem te ma ko woo xam ni ah, sone ba sonn jëlul xam ma xaaral kanam tuuti xam ma wàcc sa suuf toogaay kaw bi moom dama sama yaram neexu dama ko mënatul xama koor gee tax ceebam bi de daa mel moo tane sama bos ba ah vocal <laughs> waaye sàmba kii nag dafa xamul kan la ko jëflanteel te <laughs> mu koo yërndu ba xool ba xam ndax ñëw <laughs> kii de gisuma fi sa trace am xaaral daal ma man ko gisuma fi sa trace am nii rek la def. ko len dimbalé lu ñu xam da ngay na dimbalé man de waaru naa ma ñëw boobu légui man xamante tay nu may def xana ma jëm japp ci yalla rek yàlla baax na sëtëtëtëtë dama jaxlé waaye xara ba sama nijaay ñew rek mu lijjanti xaaliss bi jox ma jaxlé dama sax waaye mu ngi di xaaral ma dem

il faut il faut que euh, façon tu as face à là il faut partir à l'hôpital hôpital weeru corps. ah, ah. ah nii moi, Je suis parti à l'hôpital C'est ma certificat médical Comment c'est t'appelle? sa tappale un papier docteur là, qui un papier ordinateur là L'idée de voilà 37 37 Faber. 37 37 dessna 3 on dit si ça arrive à 40 ah. dina 2. donc des 3 donc faut pas je vais travailler encore du ma liggéey. liggéey ma fu nga liggéey. non munu ma des des na trois pour dee. do do fii moom doo fi dee. ah mais donc munu la liggéey. léegi boo liggéeyee luy def pour lekk. ah ñu lijjanti benn affaire mais du munu ma liggéey pour dee fii de. donc maa ngi maa ngi dee fii. Ah, ci ci loxo doo fi dee ah, doo lu kay doo jógee da nga ñëw fi dee fii. yow 37 ma benn feebar rek ma tëdd nii. ah gis nga ok man 37. ah c'est parce que màgget lan léegi. oui mais fan la fan la fii la. bu laal ay bu laal. mais ni Ndiaye. anaan doogu bi. Jaabi Jaabi. Mpaaj. wala voilà, voilà, wala voilà. wala. Mpaaj. mais mais Mpaaj pourquoi pourquoi toujours yaa ngi wax Mpaaj boo quatre fois sax yaa ngi ñëw. li baaxul wax ko. fois bas quoi mais défaut fois son seul défaut c'est ça là et puis dogu, dogu quand quand nous on vient dogu doit être déjà prêt. loolu kay dëgg la. xam nga waaw waaw li mu doon jarbaat baat waaw waaw. lu baam baaxul. mu koy nii la mel. <laughs> eh Mbaye ñoom Baye Baye la. man rek la yow est-ce que yow ah Umpay kontaan de. ah maa la gën a kontaan. non Umpay Umpay Umpay liggéeykat la. waa Ndiaye jógal. non non non non bul jóg bul jóg. wóorul wóorul. déedéet moom dafa feebar ah, léegi. wóorul wóorul wóorul. xaaral xaaral. léegi yow mën nga ko saxal déedéet jëla sombi bi moom mënul lekk lii jëla sombi bi. ah bi ngay jël waaw mën na lekk li. Mbañ li. am nga sexal ko. Mbañ. loolu laa def. lii jaay. sëñ bi dafa neex de. et puis sëñ bi bii. Eh. mu ceeb. Eh. Casamance. ah bon. waaw ceeb Casamance. Eh. ceeb bu ñu bu ñu béy Casamance bi. waaw muy ceeb bi. waaw mais xanaa gàncax gi mos. Hmm. nekk na de. yokku yokku bul jóg bul ngir yàlla bul jóg. yokku yokku bul jóg. voilà la saaxal. dina la saaxal. dina la saaxal. sa. ni nga lan la. defal naan. la ka suntu. defal la ka suntu. la saaxal. jox mu lekk de fexeel mu lekk bu eh, baax. non dina dina ci man rek fexeel mu lekk bay ci man xam nga fan yëpp lekkul lekkul ak gi te li baaxul lu gawal non xoolal ni jaay hmm? am ay ni jaay <laughs> bu baax a baax waaw ah, mi ngi lekk ma egg si biir voilà demal ngi lekk mi ngi lekk eh, eh, eh, sumbi sumbi <laughs> eh ni jaay

émergence émergence Sénégal me dit émergence. léegi du du du émergence émergence émergence émergence là. émergence émergence ni émergence xamale te yow la hmm. ah. hmm. hmm. tu comme 37 dina e, e, ni de bëree ndax ràññee nga ni de bëree dëgg-dëgg ndax ràññee nga Maria,